imaam kuréel gi sàmm jikko yi daal ah li ngeen am morom de sëriñ du astu Mbacke daal di ab chroniqueur di marabu mm-hmm. nee day taxawal ak kuréel mm-hmm. kuréel goo xamante ni contre yéen lay doon lu ngeen lal rek mu làlliku ndax nee na yéen da ngeen fi indi bëgg a indi yóbbu benn projet de loi sa ensemble muy projet de loi bu góor jigéen ñi mhm. moom nag dina fi indi kuréel goo xam ne day xeex ak yéen du ngeen mën a yóbbu projet de loi boobu ndax projet de loi boobu waruñu mhm. nit mën naa en nit sax ne ko góor jigéen nga ñu jàpp ko si moo tax daal nee na boobu àndu si nit it mën naa nit mën naa doon tooñ nga jéñ ko kii daal ndax amoon na benn kii mhm. koo xam ne nit ñu yoxoo ko sàcc bañ jàpp ko ba dóor ko <laughs> nee daal foofu la sukkandiku ba projet de loi boobu daal duñ ah waaw baax na en tout cas ñu ngi koy xaar. moo hmm. Modou xam na sëñ Modou xam naa ko baax sama waaye la dañu leen yi ba tàyyi. Hmm. waaye ñu ngi koy xaar combat bi Assane amuñ ci xarit de. Hmm. Ah, amuñ ci xarit cest à ay caaxaan mi ngi yem ci toog naan Sénégal kenn du fi jàllale loi góor jigéen pour lan on ne du quoi bi ñu dugal loi bi sëñ Modou fan la nekkoon. mi ngi fii ci réew mi la fi nekkoon ndax man ñi ma gis ñuy xaw a leem leemal jamonoy Macky dañ see radicaloon. ah waaw waaye jamono ñi dañ si xaw a leem leemal ndax xamuñu ba xam fan la gaa yi jëm léegi lu tax jamonoy Macky Sall hmm. moom taxawalul woon kuréel googu wane ne bii loi kenn du ko fi jàllale. Hmm. lu tax mu xaar ba heure bi mu ku nekk dugal na procédure mais ñëpp moom sax doon na dégg coow li. waaw ah, ñëpp dañ si na loi beeg yëpp mu ne ca pat tey mu xaar ba heure bi hmm. bàyyi it ba élection yi passé boole ci. xam nga lii bu ko waxoon avant élection yi day nekk débat. waaw mu bàyyi ba élection yi posé. mais nee na yow la dégg yow mii yaa ko wax xam nga yaa ko ah. wax fii si plateau bi. Mhm. yow yaa ni. Euh, kii gouvernement bu bees bi li xaar ci ñoom. Ah. mooy ñu ñu watee projet loi bi loolu yaa ngi koy xaar. waaw moom nag léegi nag waroo xaar loolu. ah waaw loolu la ñuy xaar ñun de ñoom la ñuy xaar ñu installé. Mm-hmm. ñu fa gàddu loi bi joxaat leen ko. Mm. waaw te man damaa jàpp ne nag euh, bu dee Ousmane Sonko tax mu di ko def. Mm-hmm. na usmaan sonkoo xam boppam bu baax xam ni ñi koy yàq la ngi nii kon. maa mm. la ko wax. ku taxaw ci digg pénc mi engagé wu ne dinaa def nangam ku wax ne ci yow la bokk taxaw ci diggu pénc mi ne la sa kàddu gi doo ko fi defee loolu mooy tamit teppi say wax ci diggu pénc mi loolu mooy weddil sa kilifa sa kilifa wax ba pare nga ne ko weddil sa wax ji ba mu set hmm. te man day déglu naa ko ci benn palaatoo mu ne hmm. man awma xalaat lu Sonko wax laa wax ah, fu Sonko nekk la waaw nee na fu Sonko nekk laa nekk lu mu wax laa wax ku ko bëgg mu bëgg la ku ko bëggul sama yoon nekkul ci ah, yow aw ma xalaat waaw léegi nga ñëw fii Sonko ne man su ma yéegee luwaay yi ma njëkk criminalise ci lay bokk nga ne danaa taxaw temm pour mu dindi kàddoom googu ana ñaari wax yi lan la cest à dafa am ñoo xam ne nii man jàpp naa ne bu fekkee ñi ngi jàppale nguur gi it man gëw ma ko hmm. parce que mu pour man jàppale président yi ak Ousmane Sonko bokkul ci nga naan leen luwaa bi bu leen ko jàllale hmm. seen premier ennemi moo leen di wax loolu ma wax la ko ñoom benn problème lañ mën a am ci nguur gi mooy ñu dellu ginnaaw ci li ñu waxoon ci loi bi loolu mooy fii ak cinq ans na leen lenn loi bi mooy seen opposant hmm. c'est-à-dire loi dañ ko war a vider mu jeex Assane ñu ne ci leneen. mais est-ce que est que li ñuy teg mat na argument comme ça tey jii imam Babacar Sylla man hmm. na maa tooñ wala ñu xeex mu gañe ma ma dem tuumaal ko ñu jàpp ko tëj ko si kaso bi te imam taqewul laalewul nee daal loolooy tax wóoru <laughs> loolu mooy respecté wu àttekat yi <laughs> respecté wu procureur respecté woo sax ñi tëgg loi bi cest à mel ni daal ay xar yu xamul dara ñooy xëy rek après ne waaw Assane góor jigéen la ma daal rek rek ñu jàpp kooku tëj ci kaso bi yow réew mi lay doxee xanaa kon man su ma neexoon bu subaa la sàcc jàppale tëj ci kaso bi loolu daa mën a nekk waaw ndax sàcc waaw nit mën nga ko jiiñ góor jigéen indi wooy preuve ñu koy jàpp ba pare nee na preuve yi mënuñ koo gis nangam nangam gis nga ak ngóor jigéen ndax ay yàmbaak yëpp dañ ko fi tere ni mënoo gis nit jiiñ nit yàmbaa pour en ko rek wala xulóog moom jiiñ ko yàmbaa déedéet da ngay xaar ba am profil la leer na. merci beaucoup boo fekkul yàmbaa ci moom mënoo fexe ban jàpp. kon nit kon loolu presque. loolu ay jaaxal la bu dee lii mën ko wate. bu dee da ngay bañ léegi ñu jiñ ko nit. voilà te doonu ko. Ah. bu dee loolu ba pare ba pare ñun. waxuñ sax ay affaire yu nit ku jigéene baat bi xaw a lem lemal wala ay ciram xaw a jigéene wala mu moddee ñun ñooñu suñu yoon nekkul ci ñoom ñooñu ay fal ay euh, mal malformation formation lañu am yaakaar naa lañ koy waxee maanaam. dañu juddu seeni i cër xaw a am tuuti mm-hmm. làggi-làggi moo xam baat la wala leneen mm-hmm. ak ngóor jigéen ki koy doon ci jamono bii laa wax de ci agenda LGBT du am lenn luy firndeel ne kii góor jigéen la mm-hmm. day entraîné ba ceene day takku ba dëgër day am jabar ami doom waaye li bëgg nag mooy day takk góor ni moom def ko jabar suñ bi wii musiba nu ko nit di xoole te loolu moo am fépp France gii seen ministre des affaires étrangères mooy jëkkëru seen premier ministre. ñu ñoom ñaar di costume ba doon dugg toog ci kenn ñemewu leen xool ba ne ñii góor jigéen leen loolu ñoom ñu xam ko di ko doxal nit ñi di xeex loolu mu leer ci seen bopp nañ ñi nga naan noo damay ragal ñu jiiñ ko koo xam ne. ki taxaw ne man góor jigéen la man homosexuel laa ku taxaw wax loolu yow looy xaar pour mu tëdd góor moo ko wax moo ne man homosexuel laa ba pare di wut ay droit def seen drapeau ni ñun ay góor jigéen leen mais Assane ñooñu nëbbatuwuñ di. ku forme sa kuréel wut sa drapeau ne ñun ay góor la ñuy wër di tëdd ak ñoom na ngeen ñu wutal ay droit nga naan noo wóorul parce que mën nañ koo jaawale kii loo ciy jaawale kii moo tax di waxal boppam. moo tax ma jàpp ne ñii man doo xam lu leen animé daal lan la lan moo nekk ci ginnaaw lan la. Ah, lan la jaaxal ndax Cheikh Omar Diagne ma yeewoo sa pale ba moom nee na dañ ko war a dañ koy criminaliser loolu moom. loolu rek bu mujj bii wax na ko nee na loolu luñ war a def la. ba ma ko déggee ci Cheikh Omar Diagne dama cee kontaan ba partagé ko sama page Facebook. ne moom dana ko conseillé gars yi. waaw waaw man gëm naa ne loolu du ci am ñaari kàddu mukk. Hmm. lenn nag mooy mën a am gars yi ndëgg sërëx yi nii def naan waaw duñ ko criminaliser waaye nañ ko teg ay daan yu metti effectivement ñun loi biñ dugaloon daan yi moo diis mais yeggul ci crime hmm. su dee loolu la bëgg a codé te loolu juriste yi ñoo ko defoon hmm. ñun bi ñuy demandé criminalisation lañ bëgg mais Assane ñun defuñu droit hmm. ñun xamuñu loi yi waaw ñoom nag ñoo xam mais dañ dañ ko criminaliser parce que mbir mi crime la juriste yi ñu ko jox nag ñoom nga xam ne ñoo jàng droit ñoo xam loi ñoo xam na muy tëddee Euh, euh, ak li contexte bi laaj ak boo ko dugalee ñu bañ ko rejeté mm. ñoo naan la bu ngeen bëggee loi bi efficace daan yi mën na dem ba dix ans mm. xam nga crime dix ans ba vingt ans la mm. da ngeen ko jëlee cinq ans ba dix ans doy na loi bi cinq ans ba dix ans moo ci nekkoon yu mel noonu lañ ko def bon alors ah de moom xoolaat xoolaat texte rek kii ko loolu daanaka ci début crime la nekk mais njëriñu loi bi mooy njëriñu loi bi mooy ubbi gi waaw tëj moom dafa metti boo tëj gi sax ñoom ba léegi ñu ngi ci wax naan ab góor jigéen kenn du ko tëj loolu sax maa ngi koy bàyyee ñi nga xam ne ñoom dañu xaw a non non xam nga dañ leen di kii dañ leen wutal ay gétt rek si biir ay gétt yeew leen ci am tànk waaw gétt sax da nga boole ñaari xare ki ñett waaye gétt yoo xam ne kenn du bokk ak sa moroom ku ci nekk sa métu giri lañ lay defal giri yu ne fàng nga toog ci biir bu ñu dee waxtaan nag ah sa añ <laughs> ah, di nga tal leneen loo xam ne doo fa nekk di layam-layaami Assane est-ce que am na réew yi sanctionné góor jigéen <laughs> ñoo ñàkk jom <laughs> mais am na réew yi tëj góor jigéen ah am na réew yi tëj góor te amaguñ ci benn inconvénient hmm. mi ngi mel ni ñu ne la kii reykatu nii la nga ne kenn du ko dugal kaso hmm. ñu ne la kii da doon agare rey ñam dëkkandoo da ngay jël say mesure mesure yoo xam ne mën nga fexe ba am foo leen di def te sax gis nga Assane bis bu sanction bi wéree ne am na. du doo doo jàpp kenn. kenn dootu ko defati. doo wala koy defee da nga génn Sénégal. seen problème dañ xam ne amu fi rek. gis nga bi ñu gisee ne terrain bi favorableul mhm. dañoo tëb. dañoo waaye bu ñu gisee ne ubbeeku na pour ñëpp. Mhm. dañuy ñëw daanu si biir dëkk bi sonal nit ñi man dama mhm. jàpp ne. lii nañ ko vidé mu jeex ñu nekk ci leneen. luwaa bi ni ko nit ñi réyalee naan ku ko voté loolu yeggu fa. tubaab yi sëñ bi du ñu yàlla du ñu yonent du ñuy malaaka. ay nit lañu comme ñoom ñoo ñu gën a soxla sax ko ñoom xëy na dañu gën a yeewu rek ci wàllu àddina dëgg la nañu voté luwaa bi mhm. te liggéey réew mi ne ci leneen bàyyi ñi nga xam ne xamuñu sax fu lu ñu reeree démb mhm. mm. am na solo imaam mm. Ababacar Sylla lii la ñu indiloon mm. askanu Sénégal te yaakaar naa ne njariñ kese la dinañ ci mën a bàyyi xel macha allah jërëjëf euh, Serigne Assane ñu ngi lay jaajëfal jaajëfal waa Solution TV yëpp jaajëfal Serigne Chouaïbou mi ñu nekkaloon ci xarale gi jox leen dig daje semaine bi di ñëw jërëjëf sëriñ Fallou Gumbala jërëjëf soxna bu Diop waaye jërëjëf ñeen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan ba uh, àllarba wala alxames. ba talaata incha allah rabbi ak beneen numéro jërë ngeen jëf. Hmm, ci ngeen bokk dikkati la de. ndax sax Alioune Sall ci émission bi la bokk. waaw ci laa bokk incha allah maa ngi bokk ci émission ci ngeen bokk màggaay yi bokk di déglu ak suñu mbokk Iran Ndaw